merci de votre fidélité à la VF TV bienvenue dans la revue des titres tey nag ñuy avec le journal bi Maudit le soleil le soleil A sa une une campagne agricole 4 millions de tonnes de céréales visées le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Moussa Baldé fait le point sur la première phase Madame fi mu nekk Sénégal ma ngay xaarandi 90 millions de tonnes de céréales Yo, xamante ni nii dinañ ko séddale ci biir réew mi loolee nag tax na ki nga xam ne lañ dénk mbay mi ak équipement rural di Moussa Baldé moom nak daal dinay génn Nous ci ab waxtaan ñu seeti Las laas mu règlement de compte violente à Liberté 6, un malfrat lynché à Liberté 6, ses camarades se révoltent et saccagent 18 véhicules euh, mu nekk mbir mu doy waar ab defkatu ñaawteef boo xamante ne nii dañ ko dóor ba faat ko fële Liberté 6 loolee nag moo merloo ay farandoowam ba tax na jamono yi farandoowam ya yàq nañ lu toll ci fukki oto ak juróom-ñett fële ca Liberté 6 euh, ma seeti réew mi quotidien réew quotidien à sa une mu Econ City la grande arnaque euh, les autorités étatiques musique ont été aveuglés par la célébrité du promoteur mu nekk nag mbir mo xamanteni ni mo jëm ci Icon City Icon City nek ab cité bo xamanteni ni nii waykatu Amérique bi te ciosano Sénégal di Alioune Badara Cham ñu gën ko xam ci Icon mom moko mom. Way nak nag japp jàpp ne nguur gi dañoo sétane Alioune Badara Cham raa di defee nu ko neex jëmele ko ci Akon City boobu ba tey rek ci journal bi di réew mi quotidien mu ne ab abus de confiance ab maître coranique di jàngalekatu daara moom fi mu nekk nii dañ ko tuumaale dafa luubal lu toll ci fukki million ak juróom ba tey ci journal bi Linguère foofe nag ab jéeya moo fa xew ndax benn borom kër dafa daal di faat doomam ñu jóge ci réew mi quotidien ñëw ci les échos les échos nag daal di ñëw ci coow la nga xam ne fi mu nekk nii moo am ci Expresso Sénégal jamono yuy lu toll ci juróom fukki employé daal di nañ leen dàq Eh, ba tey rek ci les échos les échos nag amal ab waxtaan ak ki nga xam ne moo fi nekkoon na eh, footballkat ci équipe nationale du Sénégal di Ferdinand Coly Ferdinand Coly nag eh, daal dinay wax rek ne jamono yi am na loo xamante ne ni neexu ko bokk na ci Saliou Ciss mi nga xam ne fi mu nekk nii amul club waaye ki nga xam ne moo di ab Abdou Diallo Nampalys Mendy ab Pape Gueye ñoom club ya nekk di fa football doonu ñu fa titulaire ba tax na rek Ferdinand moom nee na xale yi footballkat xool bu baax ñuy dem bitim rew dina ci am solo bu ñu ci les échos daal di ñew ci enquête enquête mu daal attente de nomination d'un nouveau gouvernement un pays en stand-by maanaam fi mu nekk nii réew mi lépp ne tekk tekkaaral ndaxte ñi ngi xaarandi ki nga xam ne moo di njiitu réew mi di président Macky Sall mu daal di fal premier ministre di élimaanu jëwriñ yi waaye it ak gouvernement bu bees ñu seeti la tribune la tribune tey daal di xëyeeg accident yu bëri yi nga xam ne mi ngi am ci biir réew mi un mort tous les jours loolu la tribune titré ndaxte dañoo japp ne ci fukki fan ak juroom ñaar yi ñu genn fukki fan fukki doomi adama ak juroom benn ñak nañ ci sen bakkan ñu jige fa daal di ñew ci bis bi bis bi nak nee après sa candidature Karim Wade annonce son retour à tax journal bi titre titré tay ne l'appel de Doha Karim Maysa Wade nak mom nak daal di nay wo député wàllu Sénégal yi moom je suis satisfait de vos résultats maanaam madame na bu baax ci résultats yi nga xamné ne Sénégal Sénégal amna ko ci élection législative yi ñu genn waaye te nee tenez-vous prêts animer les bases maanaam euh, nañu préparer tayit animer bu baax base yi ndax moom Karim Meïssa Wade mi ngi ñew ak doolé kaka feelu nag di Waré sar Waré sar néna Karim a parlé un bon wolof manam Karim Wade wolof yu set yu wécc yu leer nañ la dadi waxé ak ñom ba tey ci bës bi daadi ñew ci accident bu metti bo xamanteni ni amna na ci bar ni foofee nag benn bus tata moo fa daal di laale ak benn camion ba fi mu nekk nii ñeenti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan mbokk yi tey lii lañ leen indil tey ci seen revue des titres ñu leen yi jaajëfal ci seen safo bi ngeen safo télé bu mag bi nga xam ne moo di VFtv waaye te noonu laay jaajafalee sama technicien Fallou Gueye moo ciy jàpp saa su ne ba liggéey bi yem ba jërë ngeen jëf